asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin lil makkin wa ala alihi zabi diwaan wa tamkin mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu fi ñu leen baaxoo nuyu ci seen émission bu mag bi ñuy wax Sunugal 24 ci émission bu mag bi ñuy wax Warma tey jii nag ñu dalal ci borom xam-xam di oustaz Jibril seen di borom xam-xam boo xamante ni mi ngi bàyyi ko ba Touba ñëw ci émission bii nga xamante ni mooy war ma mbokk yi war warma buñ ko waxee day tënk mboolem loo xamante ni luy joxe cër lay doon moom lañ ci jubloo wax. te nag ñu dalal ci oustaz Jibril Sène war waxtaan ak moom ci ñetti point yoo xamante ni point yu am solo loo xamante ni jamono moo fa toll te jamono moo ko laaj kon sëriñ Jibril Sène ñoo ngi lay nuyu baax baax di bàyyi nga nuyoo ak mboolem. téléspectateurs yi Sénégal 24 yëpp aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alladi yusalli ala annabiyi almuntaqa almusalli sallallahu wa sallama alayhi allahu fi l ali wa sahbi wa man wala Seydina Ali ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu mboolem waa Sunugal 24 gépp mhm. du ñuy mboolem ku topp jataay yi fi amee mhm. tàmbalee kàddu yi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu gën fee yàgg lool te wér mhm. di ko ñaanal mboolem suñu kilifa diine yëpp di ñaan jàmm sax dàkk ci réew mi di tatagal mboolem mbokki julli ci weeru koru tëdd wi ñu ñaan ñu woor ko ci jàmm ceegale ko ci jàmm kon loolu mooy kàddu du yooyu bu ko defee ñu dugg ci waxtaan yi nga xam ne moom lañu war a amal incha allah bismillah ginnaaw bi ñu déggoo nuyu yu am solo yooyu nga xamante ne mu ngi koy nuyu mbokk yi di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi ba yéeneem ak kinnaat yi nga xamante ni moom la am ci lëggeel ko Serigne Touba mu defee ko ni mu ko bëggee noonu la ñu bu baax it xalifa ak Serigne Abdoulaye Diané di Serigne Aline Badara Diané di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ko wér waaye di ñaanal bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Moustapha Diané mi nga xamante ni mooy suñu wayjur di suñu lépp. di ko ñaanal suñu borom taxawaayam ci kër Serigne Abdoulaye Diané suñu borom defal ko ni mu ko bëggee. Mm-hmm. waaye di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax Serigne Amdi Modou Mbène xalifa Cheikh Ibrahima Fall. nga xamante ni émission bi tey jii dañ ci jaarale waxtaanelal ci Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina ak Muritam ak joxe war ma gi nga xam ne moom la joxoon mboolem mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon kër Serigne Touba. kon Oustaz Jibril Sène mën nañ tàmbali ci waxtaan bi. Euh, waxtaan bu njëkk bi point bu njëkk bi mooy ñu ngi ci weeru koor di ñaan sunu borom subhaanahu wa taxalaa mu may ñu kattan ak wér ban woor ko ci jàmm ak salaam di wax ne yit ne ñoo ngi nuyu baax bu baax a baax mboolem ñoo xamante ni ñi ngi bàyyi xel émission bi te dëkk ci biir Dakar ak ñu nekk ci biir tubaa yépp ñoo ngi leen di nuyu baax a baax a baax di wax ne it ne sëriñ Serigne Touba Xaadim Rasul radiyallahu taala anhu mi nga xamante nii mooy sunu buntu ci point bu njëkk bi ñuy waxtaanee. ku ne xam na fi mu tolloon diine ak ni nga xamante ni ni la meloon ci diine ak bëgg gum ko bëggoon bu weer wi masaana teru di weeru koor da ko daan teral di di ci def loo xamante ni ay jotaay yu yéeme lay doon waaye digganteem ak alquran nga xamante ni musta taqalikoo ak moom nga xamante ne mi ngi wax ne yàqu di la quran xaw dan lam yekkun li xayriya dahra waxaadal yekkun alquran a may wo mat fu ma jëm fu nekk moom fay jëmee kon sëriñ bi bu weer yu masaana teru naka la ci daan am ban taxawaay la daan am ci jotaayu weeru koor bu weer yu masaana teru nan ban taxawaay la sëriñ bi daan am jërëjëf sëñ Aline Badara sëriñ bi xam nga kaana wa maa yazaalu mhm. maanaam ndeke jekk daa mas nekk te mës ta deñ mhm. di ku bëgg alxuraan di ko mhm. xër ci ak jaamu yàlla ci ak ndawam ba niñ ko noppee gis ci àdduna muy dox ci kaw suuf ci kaw ci jaamu yàlla dong la mas a nekk benn naar gànnaar sax doon wax naan moom bi mu doonee ndaw la rawoon ñëpp ndax déggee su loon jamono ku jur am juróom-ñaari at di naafila saada teflan wa asruhu laysa fiihi man yusalli bi sabati awaamin kon sëñ bi dañ ko mooñaale ak jaamu yàlla ndax mm-hmm. soxna jaaratullahi mariam busa mm-hmm. moo ko teeloon a wax naan ko bokk na ci aada yi nit ñu baax ñi mm-hmm. mooy di jaamu yàlla guddi min da bi saalixiina qiyaamu layli noonu la ko cheikh mahamadul bachir nett lee ci téeram bu sii boobu du minanul baaqil sëñ bi doonoon koo xam ne bi mu doon ne tout temps comme lii nga wax war ba mhm. sëñ bi joxe woon war ma la mhm. li mu doon fees ak dogalu bi yàlla lépp mhm. daa joxe woon war ma lool bari woon xam-xam nag moom ba fa xam-xam mën a yem waaye alquran moom sëriñ bi da ko da ko féete woon nu ndax mhm. mhm. mhm. am na fu mu wax ni yàlla dama ko moomloo man lakanil qur'aana tamlikat moom la alquran am na fu mu wax ne yàlla dama sarax alquran am na foo xam ne yàlla dama koo jaay kon nu nu féetewoo nag alquran waxoon ni tamit alquran mooy sama wérd te moo dox sama digganteeg lépp lu mën a ñaawal sama mbir kitaabul azizi mm-hmm. wirdi xaala mm-hmm. baydi o bay baydi o ba bay o bay da bay yusiul xaala mm-hmm. lépp lu ñaawal sa dana ñaawal sama mbir alquran dana dox digg ak moom loolu waxoon na ko ba tey alquran dafa waxoon ni ni ma ci téye ni ma téye ci alquran mi ngi mel ni ku ni mu téye ci yat wi ngir ki koy wommet mën ko yóbbu noonu laay téye alquran maasikan mm-hmm. bil kitaab bi mm-hmm. maska daririn mm-hmm. bi yadi al qaidi al basiri al muini nga xam ne kon noonu la ko fankoon waxoon al ni ni bu ma bu ma feebaree al quraan moo may faj mooy yaa kitaabal karimi anta habibi wa qalili wa qabla kunta tabibi wax ni bu fekkoon am naa dencukaay magasin mooy alxuraan su ma lu muy tiitaroo ci àdduna mooy alxuraan sama daraja dëgg-dëgg ma yow mhm. wa kanzi mhm. anta kanzi mhm. wa mafxari anta jaahi waaw nga xam ne loolu anta izzi yaak izza kulli labibi nga xam ne kon al dangay sëñ moom ni mu fonkoon alxuraan fi doon nii sëñ bi ab jataayam ñi mu ci gënoon bëgg mooy ñu ma ko alxuraan loolu ma waroon daare kaamil jëwoon ci njaareem ba fu mu mas nekk daare kaamil newoon na fa ceyee nag gànnaara fu mu mas ne moom daal di kaamil ji day ne mm-hmm. nga xam ne dañuy jàng lu mu gàtt gàtt juróomi kaamil mm-hmm. ci bis bi mm-hmm. dana ko jàng te ba nëgë mi ngi am Tuubaa ci daal di kaamil ci biir jumaa day wane yàgg sëñ Tuubaa alxuraan ak miin gum ak man mane na ko ci nett li bu boo xam sëñ Abdou Lahad Mbàkke radiyallaahu anhu bi ci kawam ni ko ah kaamil bi day Mm-hmm. rafet na lool mm-hmm. waaye fa fariqan kadabtum ga ca bàqara ga daal ga da nga ko si dawut te boobu ubbeegul kaamil bi yaakaar naa ku amutub sañ-sañ ci alxuraan du ngeen egg foofu kon sëñ bi mm-hmm. ba tey fonkoon na ko foog koo xam ne doom ju ko mokkul ba ci soxna yi daan dëkkoo yi daan dëkk ci këram sax mhm. dañ naan mokk alxuraan mhm, mhm. jàpp naa ku doon gis sëtam bu ko mokkalu it mën naa mu néew ba ci ay doomam jigéen na ñoo mokkal alxuraan loolu daan ko bind kaamil jox ah, loolu moom lu doy waar la yàlla fay na ko ci boo demee Tuubaa gee ñu dëkk maag ay junni junni daaraa fa ne wallaahi wallaahi ay junni junni gone yi tuuti yoo xam ko dara ñooy mokk alxuraan ndeysaan fi mu toll nii barab yi bari ñoo fay naafi la ndeysaan loolu day wane kon suñ tubaab fu féete woon alxuraan ak fokk alxuraan féete woon daana ci jox nit loo xam ne alxuraan boo mosaa bindal suñ tubaab kaamil mhm. bu la joxee alal mhm. maam day mel ni mhm. maanaam yaa ëppale alal fa nga fa nga jóge woon ba nga bind ndax mm-hmm. loolu tax sax waykat bu doon wax ni mm-hmm. nit ñi dañ daan mel ni ñu ñuy wër kaaba ci bariwaay mm-hmm. ngir di ko indil ay ay naa taran naas afaajan bi ba bi amaama baytihi ka makkata yowmal xaj ne nit ñi dañuy mel ni ñu aji màkka ngir bari ci këram ngir di ko indil kaamil alxuraan ngir bëgg ku mbëggal am na ku ko mas a indil kaamil alxuraan sëriñ bi da ko wax ni ko ana koo gën a jegeel ca ya mhm. mu ne ko sëñ ma sàmb Jóob sàmb sëriñ bi bind ab leetar boole ko kaamil bi ni ko demal nga joxal ma ko mu sàmm ma sàmm Jóob sàmm dajaa bind ni ko bu ñëwee nag ma ko teral ci kaamil bi ma bindal booba sëñ bi ñetti téeméeri ngurdu la daan joxe mhm. ci ku ko bindul ta kaamil mhm. sëñ ma sàmm Jóob jox ko juróom benn téeméeri ngurdu ngir ndigal ndax li koy li tax mu gën koo yokk mooy ndigal li jógee sëñ Tuubaa ñëw ci moom ba noppi daal di kaamil bi hmm. ni ko mbind mii jóge ci sama sang ba moom laa bëgg a jël loolu nag du du ñàkk war ma alxuraan ndax ñoom alxuraan yi kese lañ waaye boobu doon wane misaal rek ci sëñ Tuubaa fi mu teg alxuraan hmm. mu tegle sëñ Tuubaa fi mu teg alxuraan ba tax mu mu daj ci coono boobu ci teral ki nga xam moo ko yore ba tey da gis ni hmm. naari ñoom xamoon nañ ko ci naar yi xamoon nañ ko ci ni meloon ci alxuraan am na benn naar gànnaar sax moom mas naa indi sëñ Tuubaa ab bi ko sëñ bi joxee ci alal lim ko jox daa tiit mm-hmm. bind aw bayit yoo xam ne bind ay bayit yoo xam ne mm-hmm. daa ne kum neex mën ngaa ne kum neex mën ngay téye loo am mm-hmm. li fi jaamu bi yàlla bi ñuy wax Ahmadou Bamba ngi ci kaw suuf man amatuma benn jafe-jafe ndax xalima am na daa am na te ku bind xaalis doyal ku bind kaamil doyal xaalis maa in ubaali isa ma darna zuumaali anni bi xatti bi ah, ijrati xattil mushafil aali maadaama rawsul wara xayyan yubajjiluhu ajal wa yubzulu fihi xaaliyal maali nee na fee ni fekk jaamu yàlla baa nga njaarim mhm. te kuy kabil tonewu mhm. kum neex mën ngaa nay kon suñ ci waa mboolem kum bokkal jamono mhm. xamoon nga fu mu tegoon alxuraan moo taxoon bi muy dem ci tukkeem ba mu batale woon sëñ Ndaam Abdourahmane Lo njaboot gi ngir mu jàngal alxuraan waxoon borom daaru mooti nu ko njaboot googu na nga góorgóorlu ba seen alloon a mokk muy Cheikh Amadou Moustapha Cheikh ak Cheikh seen mag ja soxna Faat ja ak ñu mel noonu mhm. kenn ku nekk ñu taxawu la ba nga mën alxuraan mhm. manin woo xam ne yéemin sëñ Bilaal Mbàkke radiyallaahu anhu mhm. bu masaa di al wax alxuraan da ngay jàpp ni moom wolof lay wax man koo tafsira nu ne man ko duppat ne ñu ne njabootam ñëpp xëruñ ci alxuraan seen wette dëgg moo doonoon alxuraan kon su tubaab war moom ni mu ko joxe alxuraan mën si su dégg ku ku mel digg ma alxuraan waxtu woo ko ma sa fekkit bu nekkut ci maanaam nag nga fekk muy bind mhm. wala nga fekk muy wérd mhm. doo ko doo ko fekk mu beru di jàng mhm. amul woon goo ko jot waxtu yu bind ci lay jàng te waqaf bi mu war a jàng ci bis bi faaw dana ko bind dana ko jàng waaye amul woon jot gum leen di teqalee moo tax mu ni bu ma daan bu ma daan bind laa jàngaale waqaf te loolu ku dul moom mënoo ko woon waaw yedd yi taxut la waxoon wala saani yet lu bu may bind sama làmmiñ ma ngay jàng kon sëñ bi ci gàttal moom foofu la tegoon alxuraan bu suñ toll nii uh-huh. suñ waaw lu waay ñàngal ñàngal ci koor war xam ne moo la dàq woor ndax woor jëfee jëfee ci ñun daal waaw suñu tëdd suñu lal uh-huh. ñenn sax nekk barab yi sedd di woor sëñ Tuubaa dañ ko tàqale woon ak njabootam uh-huh. yóbbu ko fa sori ba noppi muy woor ba noppi muy woor ni xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi li si adhul badiu qasir samay samay samay samay kër gent na ndeysaan waaw sama njaboot sori nañ ma mhm. ngir tàggu may tàgg rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndeysaan daal leen wax daal di wax ñi ko doon yóbbu ci àll bu sori ni leen mhm. da maa yóbbu ci àll bu sori mhm. ngir li may woote naqari leen waaye ngëm-ngëm gi ma amoon ak pas-pas gi ma amoon fii laa ko dàq waxe ndeysaan ndeysaan kon kam pas-pas a xam nga nit ñaare buñ ko masaa génne këram wala yóbbu ko ci kaso yi rek day commencé di weddi lam doon wax wala ñu wax lu ko fa jël bi nag la taxoon yóbbu ko fañ ko yóbboon saa bu xëyee di ko gën a wax a wax waaw moo tax moo tax moo tax mu waxoon ne leen mm-hmm. inni mu doon wax naa inni uqaatibu nasaara turan Euh, fi ardihim li malikin muqtarra maa ngi wàqanteeg nasaraan ci seen suuf si ni leen mhm. euh, te yaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi te loolu moo taxoon nu génne ko mhm. ni ngeen xam ne tey laa gën a doon xadimu rasulillahi tey laa gën a doon abdullahi te fii ngeen ma indi fi laa koy dàq wax waxoon ni leen ni leen fu ngeen ma mën a yóbbu lu mu sori sori mhm. fi laay dàqoo jaamoo yàlla fi laay gën a dëggal sama pas-pas ci rasulillahi sallallahu Mm-hmm. du lu yomb du pas-pas bu yomb li rabbin karimin waa waasain mm-hmm. geyre maabudi mm-hmm. shukuri la daa daari wa fil bahri wal ghayr sëñ bi am na juróom-ñaari koor yoo xam ne mënoo ne diwa ko doon toggal ndog mënoo ne diwa ko doon joxub xët te keroog dàqoon na woor ci bu àll bu xonq cur boo xam ne loo dégg dégg ay xar baax loo dégg ku ni sama maam ko doon wettali ca tukki kenn antoon ak moom moom dong àndoon faridan wahidan mm. inda balwa ba inda balwa ba ba afadi moom képp àndoon doonoon kenn ay ngànnaay di yoroon na ko mm. waaye yii la woon mm. mi daa dun waa xalaamun xalimaaka daaw waxi farid la daa jundil ida wa la kenn defulu ko woon lenn mm-hmm. mu nekk jàmbaar fàkk dana joo xam ne mm-hmm. nee na bu weer waree teru bu ne tey ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu mhm. day takk ndigg li mhm. jàkkaarloog soow bi ngir di séentu weer bi am pas-pasu woor mhm. ne denc lu ma ko xëdd denc lu ma ko ndoku waaye jaamu yàlla moom kenn du ma ci raw ndax ndax ndax sëñ mu lay bu sa danoon sëñ Tuubaa de bu jaamukat yàlla yi doon dàq jëm ci yoonu yàlla maanaam jaamukatu yàlla maanaam jaamukatu yàlla yi bu ndàqe woon jëm ci yàlla ci ku daq jaamu yàlla. Mhm. day mel ni dañ leen a tënk mu noppi moom ñu bàyyi ko muy daw. noonu la leen rawee. ndeysaan loolu si loolu si. waaw xam nga loolu ak mën a jaam mën a jaamu yàlla. Mhm. mënu koo wees. Mhm, euh, bu masaa séentu weer yi ba gis ko. dana am mbégte moo xam ni daw ko am ci wudul weeru koor Sëñ Tuubaa ni mu daan bëgg ci weeru koor. ndeysaan daw ko am ci weneen xam ni kon. dana wuteeg sama classe suñ bi dana am mbégte. ndeysaan ci weer yi bu masaa feeñ moo tax mu bindoon xasida googee mu doon teeroo weeroo muy yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adati yow weer wi gën a tedd weeru koor mhm. maa ngi lay tatagal mhm. maa ngi lay dalal mhm. maa ngi lay accueillir maa ngi lay eh, xëcc sama bopp xëccin woo xam ne amut fu ma yem nga xam ne kon xasida ba mu ko bindee ba weeru koor wa jeexee koor gi di ko tàggatu doylu sëñ bi weeru koor bu sañoon day continuer mu bindaat geneen xasida ngir di ko wan ne ko sa dem gi de moom moom metti na ma yaasal bu shaaraati bil ayaati wa suwari waaw li cheet bi kaw ni abdal muxsina suwari nga xam ne kon mhm. da gis ni gii da ko doon teertoo mhm. gii mu koy tàggoo mhm. te bi mu ñibbisee ci tukki bi am na mag ñoom nett loon tukki bi ni leen dafa waxoon sëñ Mahmoudan Fall mag mu ko doon jàngal alxuraan woo ko ne ko jàngal ma xasida bu jàng ko ba mu jeex. Mhm. fu ko jàngal ma doom bi ndeyam. Mhm. doom bi ndey ja. Mhm. muy yaasal busharaat. yaasal busharaat waaw. gii mi ko taalif. bi mu uh-huh. séentu weer wi. waaw gii mi ngi ko taalif bi ko weer wi tàggu. ndeysaan. mu jàng ko nag mu ne ko Mouhamed Fall mu ne ko Mbacke mu ne ko diggante yaagu njëkk mu yaaxee barfin. ak yaagu moo jóge mu yaasal busharaat. ndeysaan gisuma fu koy taal cin sax waxuma laa di ko mos. di ko mos allahu akbar. te teewul bu doon woor. waaw waaw. nga xam ne am na jamono boo xam ni. am na jamono boo ne ab xaal la jëloon. Mhm. ñi ñi jaaykatu xaal def naan di opéré xaal bi. Mhm. noonu la ko defoon. bu doog jotee da ci sëpp baaraam doog ko koor continué waat ba waxtu ba dellusi. te moomul woon boppam. ci charia charia mayoon na ko mu bañ di woor ndax moomul woon boppam. Mhm. waaye baaraam bi lay sëpp ci xaal bi muy ak ndogum kooram ba waxtu wu dellusi suñ bi mën a woor amoon na jamono garab yi leween yi nekkoon ci fi mu tund maa yomb bi mu daan nekk moom daan dagg di ko ci tuccal bu ko defee muucu euh, ndox mi garambaay gi mu yàbbi ko ngir dog kooram ndax li ñuy wax alwisaalu mooy koor gu wéele te fekk dañ koy aaye te moom daa fonkoon sunna mu daan ak kooram dog kooram loolu nag sëñ bay jaxate wax na ko ah. daa nga musum ñax ba ngay musum ñax ah. amoo lu ñax kenn nga bàmba kon sëñ bi diggante woor ak alxuraan ak julli amu ci morom moom sëñ daam ndeysaan jël sëriñ Jibril Sène ci point bu am solo boobu noonu kon mbokki ñu fàttali leen rek ne yéen at ñu ànd ak tey ji oustaz Jibril Sène defe naa ne ku waxtaan bu baax a baax xam ne point bu njëkk bii nii ci sëriñ bi ak ni mu daan woore leer na ñi naka la moom alxuraan it da nga ciy dégg nettali buñ ne la soxna Fatou Diabake sëñ bi mas naa am ak gan mu toggal ko cere joo xamante ni cere ji daa neex lool waaye naar bi mu ci lekkee ba noppi da koo laaj ne ko ku togg lii fekk sëñ bi ki suba gi da ko won ab kaamil kaamil bi wow koŋŋ bu ko def naar bi xool ko ba noppi daan ne ko ah kaamil bi di rafet na lool te wow koŋŋ nag bi ci ngoon gi nag bi ñu ko indilee cere ji bi mu jëfandikoo ba noppi nag sëriñ bi moo ne ko ki bind ki bind kaamil bi moo togg cere ji ah, loolu sëñ bi kon jigéen ñi sax ba ci jigéen ba ci ay jigéenam li damay dëggal ne hmm. li nga wax ba ci ne ay jigéenam sax ñoom dañu mokkal dañu mokkal alxuraan loolu moo amoon ci ñoom sëñ Abdou Lahad mi it bi muy dalum jàng wa ñëw nañ ci sëñ bi ne ko dafa mel ne dañoo bëgg nga ñaanal ndax dafa mel ne xel mi daa daa dafa dafa xaw a neexut hmm. sëñ bi ne suñu borom waxu woon ci loolu daa ne ko Abdou Lahad kaay mu ñëw mu ne ŋaal mu nga mu sëñ Abdou Lahad nee na keroog la tàmbale tàqali ko ak fàtte kon sëriñ bi moom mooy alxuraan gu géeju ci moom bu dee ci weeru koor it naka la it naka la nii ñuy wooree nii nga xamante ni moom bi mu woor woor jafe woon na lool nga xam ne tu génn bu tumuranke la génne noonu nga ko indee ci xasida xasida gi ñu wax asiru xusóori xalaat wala lu xandita faraxat li ma di xil la si xanoo ma di xasiru bëgg a bëgg a tagg te lu ma jël ba bëgg koo jox mu yëfam rek ma ci ñaareelu point bi ndax waxtu daf ñoo xaw a xoj wax ne émission bii ñuy wax war ma li mu tënk dafa bari ba daanaka di gën a ñëw ci ay yeneen i jataay yu bare bari waaye nag ñu ngi nuyu baax kilifa kër gi boroom kër gi di nuyu baax a baax mbooleem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër gi di leen sant bu baax di leen gërëm ndax it ne dañuy wax ne nit ku nekk bu buñ ko yaatalee ci kër ba mën faa am lii waa kër ga ñoo ko defal kon ñi ngi sant baax directeur di ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala guddal aw fanam wéral ay cëram ba yéene ji mu am ci lëggeel ko umma islam bi yëpp suñu borom defal ko ni ko bëggee Oustaz kon ci ñaareelu ponk bi ñu wax ne Cheikh Ibrahima Fall ak warma ni mu joxe woon warma ci kër Serigne Touba bala ñu cay dugg it ñu nuyu taalibe bépp uh, Cheikh Issa Diène boobu noonu di Serigne Mor ja nekk ca Pàkku Lambaay di boro di ko baax ku bëgg Cheikh Ibrahima Fall démb ci ngoon man ak moom ñoo nekk waxtu bi ba une heure du matin ak Serigne Cheikhouna Diouf borom mi daal di karo nekk ci Kër Massar bi ñuy waxtaan man ak moom ma ne ko man de damaa gis ne musuma njort ne yow mii taalib Cheikh Ibrahima Fall nga ndax ci sa xar kanam damaa gis ne da ngaa bëgg Cheikh Ibrahima Fall yàlla mu yëkkati ay taraangaam ba ci yére bi ñu sol moo ko toppatoo andi ko jox na ko kon ñu ngi koy sant baax di ko ñaanal sunu borom subhaana taala yokk ay taraangaam ak mboole mi rakkam sëriñ Fallu ak sëriñ Baye Sall ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen gërëm kon Oustaz Jibril Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina damay wax ak démb ku ni wax euh, sëriñ Assane Lo mu ne ma jamono jiñ toll jamono Cheikh Ibrahima Fall te nit ñi war ma suñ koy waxtaanee nañ Cheikh Ibra Fall ak dikkam ci kër Sëñ Touba ak bi mu dikkee mag ñi fi fekkoon war ma ji Cheikh Ibra Fall joxe woon ak jamono ji nit ñi dañuy interpréter Cheikh Ibra Fall nu mu leen neexe ngir ñàkk koo xam moo tax léegi ñu bëggoon nga indil ñu ay leeral ci diggante Cheikh Ibrahima Fall mii war ma ji nga xamante ne joxe woon na ko bii kër Sëriñ Touba. jërëjëf sëñ Aliou Badara. Mm-hmm. xam nga Cheikh Ibrahima dafa bokk ci ñenn ci mag ñi nga xam ne. Mm-hmm. ñu bari ci taalib yi dañ leen a tooñ. Mm-hmm. ah dañoo wane dañoo wane lu bokkut ak moom te ni moom la Cheikh Ibrahima Fall na loolu. bari na ñu koy wax xamuñu ko mu. Mm-hmm. bari na koy wone woo te xamuñu ko. Mm-hmm. bari na koy mbubboo xamuñu ko. Mm-hmm. ndax Cheikh Ibra du ñuy. Cheikh Ibra rijaalullaahi la woon xaqan. dafa bokkoon ci rijaalullaahi nit yàlla yi xaqan. doon koo xam ne lu nit di xam da ko xamoon a jàngoon alxuraan ba mokkal ko. jàng mboolem fànni xam-xam yi. fi mu doon kii suñu kilifa yi Baay Faal yii dañuy jàng xam-xam yëpp mokkal alxuraan. te loolu yàgg na Cheikh Ibra da tàmbali waaye Sëñ Tuubaa la kenn xamul kum doon moom yàlla def ci moom loo xam ne moom mhm. rëy ab cër bu te tee nga wuy jikko ub làmb bi du tee wuy jikko waaye rëy ab cër ak ub làmb mhm. bu teewoon de wuy ji Cheikh Ibra Fall du wuy ji sëñ Tuubaa ndeysaan waaw waaw waaye sëñ Tuubaa moom la cërub kenn cërub kenn da koo joxalut moom waaw daa mënta rëy ci kanam waaw daa mënta rëy ci kanam cërub kenn mënta rëy ci kanam waaw loolu moo waral mhm. Cheikh Ibra bokk ci ñu wommatoon ndeysaan ñëw ci moom ci ñaar fukki fan ci weeru koor ndeysaan ñu wommut fa jaar ca ànd ak ma Adama Gueye mm-hmm. ay ay ba Ndakaar yëpp xamees na ko waaye lii ci ëpp solo rek mm-hmm. mooy bi mu ñëwee ci kër Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa daf ko laaj ni la ana lu la tax a ñëw mm-hmm. mu wax ko ci misaal ni ko man daal dama doon wut ku ma yeggale ci yàlla te loolu maam ñi daan jébbul si ñoom dawuñu wax loolu moom wax jooju lu réy la dama bëgg ku ma yeggale ci yàlla ndeysaan loolu du waxi caaxaan. du waxi caaxaan ndeysaan. mel ni ku ko wax ne ko damaa topp tànk bu yàlla bu fekkoon yàlla daamub tànk. Mhm. dama ko topp ba mu dugg fii. ndeysaan kon mooy. Mhm. xeetu ko suñu borom bu suñu borom amoon xeet. da ko doon xeeñtu ba dugg ko suñu tubaab. ndeysaan. jaayanteeg sëriñ bi. Mhm. sëriñ bi. misaal ko digg ma yónent bi alayhi salaatu wasalaam ndax. moom. sëñ Cheikh Ibrahima Fall li misaal mooy. ki muy wër mbiram te di ko topp. bu yemoon ci gis bàmmeel buñ ko dencee mën na faa toog ba am ngërëmam. ba am ngërëmam ndeysaan. Sëñ Tuubaa di la wax ni ko. Mm-hmm. sama sàng ba Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. ba ma bëgg ku dul moom. Mm-hmm. bu mu amutoon ci moom lenn lu dul asamaan si ko daan tiim suuf si ci daan dox. danaa ko liggéeyal ba am ngërëmam. foofu. kenn ku ci nekk da ngaa samp sa gaayeen sa sa gaayeen te ca sa sang ba eh, sëñ Tuubaa ci ak yonent bi waaw fàttali ko waaw bi muy sóobu Cheikh Ruwaal woon kon li may sama pas sëñ bi na ko noonu bismillah mm-hmm. mu jébbul mm-hmm. tàmbali nag mm-hmm. di organiser ndax booba sëriñ bi bi muy doog a woote booba ñu bari ci ci ñam fa woon jébbuloo nañ ànd ak moom de waaye bët bi ñu ko daan xool muy bëtub jàngalekat ah, dafa des sëñ daara bi dafa des Cheikh Ibrahima nag moo ñëw moo war a ñëw indi worma wane worma jàngale worma ba nit ñi xam worma yu murit gi mu tàmbali di soppi nuyin wi benn loxo kenn du ko joxati sëriñ bi mhm. kenn du ko nuyu di taxaw sol mbaxana sol mbaxana kaalawu da ngay da ngay da ngay da ngay rëpp say bëtu woom fële raam ab diir doog a ñëw ci moom bu tàmm comme yàgg muy tàmbul di ko nuyoo tere di ko nuyoo loxe kese mhm. bu ko defee kon loolu war mooy mur ji ñu dund ñun mhm. loolu moo ko fa indi tata dafa mel ne nag yow ci ci lii ngay waxtaan nii sëñ Basiru indi na ko ci Minanul Baaxil Xaddim te daf ne ki jébbal woon moo ne ki mu ko waxoon nit moo ko bind muy sëñ Basiru Mbàkke waaw damay dëggal ne kon lii nga wax nii mi ngi ci Minanul Baaqil Xaadim ndax réew mi dafa naqaree waxe waaye ma dëggal ne lii ngay wax nii sëñ bi sëñ bee ko Cheikh Ibra Fall sëñ Basiru ba mu ñëw ne ko dama laa bëgg a nettali keroog bu may jébbalu ki sa bu may jébbalu ki sa baay waaw te sëñ moo ko ko wax ba mhm. wax nañu sax mhm. comme Cheikh Ibra Fall moom mhm. jaayante gi da cee façon ni lu toll ni dama am daa mel ni daa waxoon sëñ bi ne ko lu toll ni mbaar bëggum ko ci sëñ bi ko lu fer lu toll ni fepp karaw boo ko am ci àdduna maanaam ba tey yàkkante gi day am rek ku nekk wane koste gi ngay wane waaye da ci nettali wax nañ ni uh-huh. Cheikh Modou Bachir mm-hmm. dafa laajoon Cheikh Ibra Fall ni ko mbooloo mu bari mi ah, ak rëj rëj jeeg taalibe yi la topp na mhm. kon foo ko jëlee mhm. mu ne ko bi may jébbul sa waajuru tedd wa mhm. sama bëti woom yi ma sukkoon ci suuf faxasit suuf so yooyee ca taxoon mooy lu ma topp ci àdduna waaye la ma daalante ak moom ëllëg yoo ma xëy am la jëm kon nga xam ni Cheikh moo jàngale war ma moo wane war ma soq rooti wal taxani loolu da ko daan def di indi kër Sëñ Tuubaa waaye nag dafa bari yoo xam ne moom dañ ko yokk ci mbiram te loolu mat naa wax. ba noppi nag doon doon doon doon doon doon buur. doon buur bokk ci famille famille buur famille bu riis moom xam ne moom demoon na ba ba nga xam ne bu fa toogoon mooy jiite ndeysaan waaw waaye Sëñ Tuubaa moo a wuy si daal njara wax gam dëgg kay waaw moom ci borom xam-xam ya la bokkoon ci ay maamam yëpp boo leen wëree ay ay ay noble lañ woon moom Cheikh Ibra Fall moo tax dañuy wax ne maanaam mën a joxe boppam Cheikh Ibra Fall boole raam boole wàcce darajaam personnalité ak fi mu dëkk ak li mu doon bu mu mën a suur lépp jox boppam sëñ Tuubaa ku mel noonu mësu koo gis kon bu ñuy wax baatu war ma rek day tënkaale émission bii nii maanaam war ma war turu émission bii war may Cheikh Ibra Fall ji da koy tënkaale looloo tax sax point boobu noonu ñu indi ko ci Cheikh Ibrahima boobu moom ñu indi ko ci temps bi gàtt waaye point boobu mënees na cee wax lu bare bare mënees na cee hmm. bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu dikkee ci ñetteelu point bi ndax dañu wax ne jataay bi dañoo xac waaye it ma lancé message ne ñaar fukki fani koor gi muy bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahima Fall giseen doolu Sëriñ Tuubaa ñi ngi ci waajal ay émission yu am solo Serigne Fallou tiin dina ci teew ak yeneen i borom xam-xam dinañ ci dalal ñu am solo ñu def ko émission boo xam ne spécial Cheikh Ibrahima Fall la duñ ko génn waaye dañ ci doon mënuñoo tudd war ma te duñ indi Cheikh Ibrahima Fall loola taxoon mu dugg ci point bi waaye Oustaz Djibril damaa gis ne jamono jii nii yoon wii di yoon wi nga xam ne yoonu murid la te Sëriñ xàllal ko boppam taxawalal ko boppam nga xamante ni kenn dimbaliwu ko ci moo ko taxawal ci coobare boppam ak ci kattanam ak ci man-manam mu dem ba daanaka noonu sëñ Tuubaa yi li ñuy yàkkamtee gis ci àddina mooy coow day daal di am rek ba ku nekk daal di jul wax ca waxin woo xamante ni yow na nga ko na na waxtaan wa demee ak na nga cay waxe du bokk mu mel ne coow day daal di am nit génn fi wax fii mu ngi mel ne coow day xew Daarul Muxti ak Touba ci kër Cheikh Ibrahima Fall te diggante maam Thierno Birahim daamal daaru ak Cheikh Ibra Fall relation yi am solo moo ci am bari na ci njabootu borom daaru gi yoo xam ne biir kër Cheikh Ibrahima Fall lan ganee jamono ku ci mel ne si Ousmane Mbacké Nouré ni kër Cheikh Ibrahima Fall la ganee jamono ak yeneen yeneen yeneen yu bari la am bi muy seet 1926 bi bi Cheikh Ibrahima Fall di siyaare Sëñ Touba bi Cheikh Ibrahima Fall di siyaare ji borom daarul Moxti ki jiitu ci moom dana ko sa mbokk mi de mi ngi ñëw mu ne xàllal leen ko bunt yëpp kooku fu mu jaar yoon la relation yooyu amoon seen diggante ak warma yu am yu seen diggante ba ci yow mi nga xam ne borom xam-xam nga di gëstu xam nga ne bu fekkee da nga gëstu des fois dañ lay nettali mbir moo xam ne dañ naan la mbir mii kat kenn du ci wax waaw lu nit di xam la rek waaye du lu nit di wax léegi nag bu coow amee ci diggante ñaari kër kii wax fii kii génn wax fii kii tontoo ko noonu kii tontoo ko noonu xotti war may daal di am nga xamante ni xotti war ma mi ngi tàmbalee ci jëf ci sa ndigal sa kilifa yëgu ko loolu moom xotti war ma ci la tàmbalee léegi kon buy coow amatee nan la ci kilifa yi war a doxee wala nan la ci njaboot gu ndaw gi war a doxee amun nañoo trouver beneen solution boo xamante ni mooy gën a yomb ka def conférence de presse parce que internet bi day tasaare rek mënuñoo am beneen beneen beneen solution bu ñu am ci kilifa yi di ko lijjanti seen bopp sans set yi di ko def nga xamante ni kër goo dem léegi da ngay dégg ñu ne sëti nangami sëti nangami mais ay set bu ñu taxawalee ne ñun ñooy sëti nangami dañoo war a dox doxeenu kilifa yi maanaam di déglu seeni kilifa léegi kon ban solution la suñu kilifa yi di xaar ci taxaw ci mbir moo xamante ni bu dara xewetee ñoom ñu teel a génn wax ci te bañ a bàyyi gone yi ñu ñu génn ci internet bi ku nekk di waxee nu la neex foog ne li nga wax moo jaadu di sagg sa sagub morom di ngir ngir ñoŋal sa bopp wala ngay wàcc sa darajay morom ngir ñoŋal sa bopp ñeneen ñi ko jëlaat di ko tas di ko partage yépp bësën ci bëgg ak tuubaa dégg leen la fa xew ñaari kër yi ña ngay nangam ña ngay nangam kon yow ban idée nga am ci xalaat boo xamante ni mën nga koo indi ci bu coow amatee ci dëkk bi ban solution moo ci war a gën a mën a yemb ka bu bokkut ak gone yi di génn di wax. jërëjëf sëñ Aliou Badara xam nga. Mhm. coow dafa yàgg am. Mhm. amul maanaam ndekk jekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mhm. nekk saxaaba yi coow daan am ci biir. seen biir. moom ci boobu këram daan am coow. léeg-léeg dem ci alxuraan sax fekk luy nettali loola. waaye alxuraan moom day nettali ngir ñu waaru ak ñu xam ne nangam daan am. ngir ñu xam ne coow du lu bees. waaye lu am ci biir coow yi mooy maanaam ñi ñi ñi njëkk a jóg ñoo waroon lu mu a jóg ñi ñi njëkk a jóg ci coow li ñoo waroon lu mujj a jóg ndax léeg-léeg nit nit maanaam di wax loo xam ni bi mu koy wax wax ko ngir saboote wax ko ngir xotti war ma waaye da waxtaan xam nga man ak yow wala ñun bokk suñu xadara bu ñu wéetee mën nañoo bañ a wax lu garaaw mais mais duñ mën nañuy wax lu bañ a wax lu garaaw mhm. mais mën nañuy wax loo xam ne duñ bëgg ku dul ñu nit di ko fekkee mhm. donte du lu garaaw loolu ci ay nit lay doon mhm. léegi nag loolu mooy waral jaxasoo ko ëpp ci yenn kilifa yi man diglewu ma nag damay wax xalaat ndax sañu maa digal kilifa yi yenn jaxasoo yi day indi ay jafe-jafe day gis kilifa yoo xam seen mun dañuy ŋàpp ñëpp di fañ ay jigéen ay gone ku ne dugg ak génn mm-hmm. yambar mu ñëw yorub téléphone am di sinap ci kii mm-hmm. si yooyu tasaaroo ñu naan sëñ bi def na lii waru koon def ni warutoon a jàpp ci nopp kii mm-hmm. tëkk ko léewu ko dëgganu ko yoo yor yoo yor waxuma sëñ bi de waaye ñëwar sëriñ si nañu wàññi yooyu ci kër sëriñ si ndax mooy waral yi sëñ bi it léeg-léeg muy buy waxtaana nit ñu enregistré léeg-léeg muy wax mu wool di wax yow ñu vidéo vidéo yi di génn loolu tamit bokk na ci li war coow li amoon keroog léegi nag li waroon am mooy bi bi mu amee ñi ko dégg ñoom dañ dañoo wax ne da leen a naqari ndax dañoo wax seen dañoo wax seen maam luñ ko wut wax dëgg la kun wax sa maam luñ ko wut a wax nga naqarul waaye man bu ma ca bokkoon du ma génn di wax ndax awma ndigal ñoom sët yi dégg lu ñuy wax seen maam te naqari leen nañ ka fi toogal seen maam mm-hmm. seen ñenn ñi seen mbaay la mm-hmm. ñenn ñu xay na maam la ci ñoom mm-hmm. ñu ne ko ñun ko diw daa wax su maam nangam bu ko defee sëñ ba jol sa dogal porte-parole ba bu ca dee wax ca bu ca waxut du ca wax bu yeneen kaa yi wax di jóge ci ñoom it nañ bàyyi nañ bàyyi seenub sëriñ wax bu ñu Bachir ah. bi te man jàpp naa ni Cheikh Modou Kara Mbacke bi mu génnee moom def ay kàddu jébbul jéggalu rek uh-huh. kon maa ñooñu toogoon di di di tontu ca biir kër borom daaru ko ñoom seen wax amatul woon sens ndax seen kilifa wax na muy muy muy sëñ Mourou Kara kon ñoom wut noonu wax ñoom ñu baal ma waaye jataay ba ma gisoon ñuy wax la ma séentu woon ñoom la wax waxuñu ko man damaa séentu woon ni dañuy wax lu jeexal affaire bi ak lu ko seral waaye gis dégg nga wax te dam demee kon jàpp naa ni wax ci ci njuum njuumte la soqi ko la ko tasaa rek ak njuumte la ak xëy na bëgg bëgg bëgg bës wala keneen ku wadde ci àll ba mm-hmm. waaye di ñu exploité wax ji mm-hmm. ci naqarloo ko dë dëgg la d'accord naa ci naqarlu gi mm-hmm. waaye naqarlu wéet wi moo moo moo waroon a bañ am daal kon jàpp naa ni coo mënta ñàkk ci kër yi waaye man waroon nañu wut solution yi ñu koy réglé mooy kilifa yi di àddu ñun gone yi ñu ciy bañ wax ndax man fi mu toll nii man yu xew yu bari dama ciy wax mm-hmm. waaye lii ba mu amee waxuma ci mm-hmm. ndax damaa xam ne lii lu mu yàgg-yàgg ay kilifa yoo koy réglé mm-hmm. man bépp débat bu ay kilifa yi réglé du ma ca wax damay noppi rek bu kilifa yi réglé ba noppi nag man nii laa xalaata woon te buñ defoon di dana baax waaye ñi ci bokk muy ñi bokk Cheikh Rafal ak ñi bokk ci borom daaru bu ñëwoon teg tey te diglu seeni kilifa wala ku ci nekk jël wax ji yóbbu ko sa kilifa kon lii lépp lu ci am. Mhm. noonu laa ko jàppee daal noonu laa ko xalaatee. baax na Serigne Djibril Fer mu ne waxtu wi moo ñu xoj ba li ñu joxoon ci temps mat na kon dañuy taxawlu foofu émission bi di sant bu baax a baax mboolem ñoo xamante ni ñoo jàppoon ci émission bi Abdou Bakhe Massamba Touba marché Ocass ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare bu baax a baax di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu taxaw la waaye di nuyu paap Sow mi nga xamante ni moo nekk ci tournée corniche Guédé nga xamante ni lépp luy verre yu rafet ak euh, ay monture da koy joxe. te it nag di ko saytu ci anam bu am solo nga xamante ni boo amee problème bu bët sax boo fa demee dana xam ban qualité weer nga war a takk ñu ngi koy nuyu bu baax baax doon na ànd ak ñun ci émission bi ñu bare bare bare bare ñu ngi bàyyi xel émission bi sëñ Jibril Sène ñu ngi lay bàyyi nga def sa kàddu gu mujj ñu daal di joxente rendez-vous li Badara ñu ngi lay sant bu mm. baax mm. boo déggee kàddu gi sax dama xaw a tawat fan yi yëpp yàlla woon na Sëñ Tuubaa waaye mm-hmm. ñaare bu ma joxee kàddu dama dul ñëwee bañ a jóg mm-hmm. boo déggee di bay waxee mm-hmm. maa mel ni kuy fatt mhm. dañ ko gis ci bët mhm. waaye mhm. ñaari damay jàpp ni liggéey bi lu baax la surtout que lu mu gàtt gàtt mënees na ci jàll lu nit mën a dégg jariñoo ko ndeysaan loolu moo tax barab bi daan naa ko dégg xëy la baa fi doog a ñëw waaye ñoom it gis naa ne ñu tegu lañ daal wax dëgg yàlla gis nga fi organisation am na fi ah, waaw macha allah daal si jóobeeg yëpp macha allah tegu na yàlla leen yàlla jàppale dafa leen tawfeex ba ñu dem ba bokk ci yi gën a kawe wala ñu sut ci amiin barke Serigne yàlla defal ñu tawfiq baax amiin barke Serigne siyaare mbokk yi yëpp bayut kenn xarit yeeg wëlër yi mm-hmm. di jagleel ab nuyu ak siyaara mm-hmm. mbooloo moo xam ci lañ mm-hmm. muy kuréel bi lëkkale waxtaankat yi muy ndaw ñi waxtaane Serigne bi ñu tudd ko mañ mootul muhaadirina ñu ñu ñu bokk ca ku mel ni Serigne Saliou Seck alxuraan bokk ca Seydina Omar Diouf ak ñu mel ni Serigne Touba Touré ñu mel ni sëñ Baye Bakke Jang sëñ Muudu Jaan ca sëñ Abdou Lahad Diagne mhm. ca Yaraax mhm. sëñ Abdou Lahad Diop mhm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi ma tudd ñu ngi leen nuyu di leen ziar biir di laaj di ñaan yàlla tegal nu loxo ci a bi ba mu gën a dem ca kanam a kanam ñu lay nuyu baax di la ziare di nuyu baax sa mag Mm-hmm. sama xarit mm-hmm. sëñ gànne mesere maxtaar mm-hmm. ak mbaaram xadara ba sëñ daaroog sëñ mutsi la ak ngeen ko bokkal ñëpp bàyyiwuñ kenn salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu na jërë ngeen jëf mbokk yi kon émission bi foofu lañ koy daal di yemale ba beneen émission insha allahu rabbi yi ci waxtaane warma ci beneen émission ngeen koy ànd sëriñ mbokkum talibé sëñ Alioune Seye maxtaar jërëjëf oustaz Jibril Sène sunu xol sedd na lool lool ci wuy si gi ndax mënoon teengal sa bopp te borom xam-xam nga te amook jot te man xam naa loolu waaye nga bàyyi lépp rek wuyu si émission bi te yàlla rek tax kon jërëjëf na la suñu borom taxaw te yokk xam-xam bi te wéral cër yi ci barke Cheikhul Khadim di ñaanal baax a baax mboolem waa kër gi yëpp ak réalisateurs yi sunu caméraman yëpp ñu ngi leen di nuyu jëre ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ci seen beneen émission ci Warma jërë ngeen jëf